salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. mbokk sénégalais nuyu di leen siyaar ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala allahuma aatini alxikmata allati man utiyaha faqad utiya xayran kathira euh, sama gars yi ngeen partagé bu baax a baax a baax a euh, ñu waxtaan ak yéen di nuyu mbokk sénégalais yépp ñëw bëgg indi tuuti ay leeral rek ñu tàmbalee ak yéen ci lenn mooy ci sunu combat yi pour ngeen comprendre bu baax baax baax baax pour lu nga xam ni moo ñu tax a jóg ñunu la lu ñu li ñu tax a jóg mooy ak yërmande ci askan wi sunu xeex mooy ñu gis ay xeetu naxe naxe ba ak fu mu mënta doon ak ci lu mu mënta bokk loolu dañ koy dénoncer ngir dimbali askan wi ngir yërëm askan wi yàlla xam na ni kii di wax ak yéen su ma gisoon tey koo xam ni day tafu portefeuille nit di sàcc xaalisu nit wala di ko àdd ma gis ko dinaa ne ah sëñ bi teel sa portefeuille de kii daf laa bëgg a sàcc kii de dafa bëgg jël li nekk ci sa biir poos su ma gisoon tey ñuy toroxal nit wala nit ko xamni yalla may la xel nga am sam xel ba nopi sam xel mom nga ci naxate pour nax nit ki ngir lek alalam pour nax nit ki ngir tardel ko xetu yeurma degu mel nonu lañuy waxe ak yeen kon motax amuñu ci tit amuñu ci ragal di ci yakar ngërëmal borom bi subhanahu wa taala même seen serigne si yëpp ngeen deg ñuy wax waxuñu pour danoo rew waxuñu tamit pour jaay fit waxuñu pour jaay ak daraja yàlla xam na ni ci cadre yi may waxee ci seen sëriñ si yëpp tamit même seen sëriñ si cadre bi may waxee ak ñoom ci cadre bi dong la génnut lii muy comme ça tey su ma gisoon ab àdd kalpe nit dugg ci kaar nit di tafu sa portefeuille ma ne la eh kii day tafu sa portefeuille heure bu may wax adiya jàpp leen ni wàllu adiya foofu la dugg nit ki da ngay liggéey da ngay ñaq da ngay daan sa doole ay affaireu adiya nit ki li nga war a def yent bi salaa salaam dafa ne loxo biy joxe moo gën loxo biy nangu moo tax nit nekkul ni tey comme seen sëriñ si comme ni ma koy expliquer ab sëriñ ay dóor la baatu sëriñ sëriñ mooy oustaz rek oustaz ab sëriñ bu nekkul oustaz kooku du sëriñ mooy koo xam ne da lay jàngal bu la jàngalee lim la jàngalee nga jëfee ko ndax dafa am ñaari façon hidaaya loo xam ni même yonent yi loolu lañ loolu la ñuy donnee yonent yi yenent yi kenn du leen doonnoo xaalis kenn du leen doonnoo lenn lu dul xam-xam yi nga xam ne moom la yonent yi yoroon yenent yi ñoom liñ daan def mooy dañ doon gindi nit ñi di leen wan yoonu siraatal mustaqim muy hidaayatu irsaad loo xam ni ci bayaan lañ koy teg ci wax expliqué ah yàlla lii la bëgg lii mooy lu baax yàlla ku def lii mu bëggal la ku def lii ku def lii léegi loolu noonu moom la yenente indi woon muy njub yooyu yenente bu fii mas a woote wootewal ci boppam ci loolu lay woote pour nit ñu topp njub bu nu demee li leen i donnoo ak li leen i toppee mooy njub ga ak seen dund ga loolu mooy li nga xam ne kon oustage tamit rôle oustage sëriñ naxaate la ay dóor la bu dee sëriñ oustage dañ si jublu mooy koo xam daf lay jàngal ci jàngal bi tamit dafay am ay façon mooy mu lay jàngal ci nga koy fay comme ngeen waxaale manam nga kay fay mu ne ah ma lay jox sama dom kan nga koy jangal nga duggal sa dom ci ecolam mu koy jangal aba di ko janggal, alxuraan di ko janggal, mu xam nga kay fay ci aduna lo xamni ni kay fay ngeen waxtan ngeen jubo sino tamit mu don ko xam tamit fay def ngir euh di jangal gone bu leni jangal amul lum len fayé mu ne len pal ba ngeen dem ba allah ba bobu ngeen kii ci leni dundu dundu ñu and dundu dundu bo xamni ni manam amuñu ko ñu la te dama bëgg njub tas loolu mooy sëriñ mais comme suñu sëriñ si ni ñu koy defee nii billahi wallahi ay dóor la mooy ka nekk Tuuba ka nekk Njaasaan ka nekk Canaba ak ku mënta nekk ku fi mënta nekk suñu këru tarixa yi dañuy woote ci façon sëriñ ñi ay naxaate la ku leen topp alko ku leen topp sànku sëriñ mooy oustaz gis nga sëriñ Tuuba El Hadj Malick Baye Niass mënuñu weesu ay oustaz bu nekkul oustaz rek jar ñoo topp billahi wallahi ndax hidaaya yi moo fi am ay borom xam-xam yi ngeen di wax ci yëpp ndax imaam Malick di ngeen naan ay sëriñ imaam Malick yéen senegal sëñ Touba imaam Malick yuun la El Hadj Malick Malick yuun la bàyyi Niass Malick yuun la Limaamu Laay Malick yuun la ci li ngeen wax mais ndax ñoom seen sëriñ boobu di imaam Malick ñu naan sëriñ ndax jël nañ ko baatu sëriñ naan léegi njaboot imaam Malick bi jàngale képp koo xam ne surtout imaam Malick nga rek yaa gën surtout keneen loolu amul fenn ci lislaam loolu bu dee ay ay. sant yeeg yooyu ngeen ko teg noonu yàlla joxaat leen li gën a piir ñim gën a fonk ko sëriñ bu fi taxaw ne moo gën a kawe yenent wala moo sut yenent di tëkkaleeg boppam yent kooku ab fenkat la bu ngeen ko toppee da leen sànq te kooku du nit ku baax ndax koy ab sëriñ du fen léegi yenent yi bu dee ci ay yonent ngeen koy kal ko ay famille ki yooyu ngeen xool yent yàlla noox yàlla indi leen misaal yëpp teg leen pour amut lay pour képp koo xam ne yàlla nee na dama leen jox seen nopp ma jox leen seen bët jox leen seen xel mu doon ay jumtuwaay yoo xamante ni si kat da ngeen ci kii nekkul diine xel la waaye xel mi ngay utilise ngir topp ndigal yi léegi yenent yàlla noox yàlla indil la ko misaal doomam safara ndax njub gam woote woon la ko yàlla yónni woon mission bi ne moom yàlla mooy bëgg ne fii laa bëgg nit ñi jaar fa mission boobu ba ci yent yàlla noox wooyee doomam doomam du fa budé par eh, pour ay jappalé nit ci ay daraja affaire yoy yent yalla no mo ëpp daraja Serigne Touba mo ëpp daraja aladji malik mo ëpp daraja Baye mo moo daraja Cheikh Tidiane mo ëpp daraja kep ko len yakkar ci sen serigne si ñoñu duñ moros yent yi duñ moromu ñoo gën ci nit ñi yent yi ñoo gën sahaba yi nga xam ne ñooñu gën yenent yàlla noox boobu doomam bu mu kii dañ ko ne doomam safara sa doom safara ndax kat yalla sun borom nee sa ndigal yi kat la topp kii kat bokkut ci yow kii yéefar la gëmul léegi après doom ja safara yàlla ne ko kii bokkut ci yow kon bokk kon mooy bokk pas-pas bokkuñu pas-pas moo yonent yàlla Nuux alayhi salaatu wasalaam bu fekkee tamit ngay ñëwaatam ci ay daraja ci ay ci ay leneen yàlla indi laa la misaal ñi dañ leen di nax seen sëriñ si dañ leen di nax seen tarixa yi dañ leen di nax seen sëriñ si waxuñu leen dëgg moo tax bëgguñu lu leer bëgguñu ko jàngale diine bëgguñu ko xamele diine wallaahi dañ leen nax li ma leen wax rek de la ñuy côté yërmande la ñuy wax ak yéen dëgg gi doon dëgg yàlla du ay danoo am fit ay géri yéen sañ ko wax dama koy dégg wax jooju daf may déranger wax jooju damay daf may déranger ay jaay fit ak jaay amul njariñ kuy wax ngir jaay fit noppil doo ca am dara bu la nit ñi ne am nga fit fan la may takk léegi boo ma ne am naa fit yow yow mi naan damaa am fit yow gëri yée nga sañ-sañ nga léegi fit gi fan la ma takk loolu loolu jariñu ma dara ku moytul yow yaa ngi waxtaanee ak man dégguma ko damaa bëgg loo xam ne may jariñ mais pas loo xam ne yow ay wax yoo xam ne takku la fenn kon booy wax kon ngir ay fit wax jooju baaxul booy wax da ngay wax ngir yàlla nga wax dëgg yàlla gi dëkk bii daf bëri tàppale suñu sëriñ ay naxekat lañ ba pare di napp nit ñi di napp nit ñi ko wax diine yàlla gi bëgg leeral diine yàlla gi ñu doon ay bandi boole la ak ay dóorkat ku ci nekk am nga say dóorkat am nga say dof kon ay mandikat ay nit ñu tekkiwul dara ñooñu ngay ñëw jël ko di ko yow ñooñu duñ dara fii yàlla borom bi subhaanahu wa moo fi nekk yàlla moo am doole yàlla nag lan yaakaar yàlla bi bind sëriñ seeg papa yi sëriñ seek maamu sëriñ si yàlla boobu moo fi nekk kon seen seen yooyu ay dóor la waxuñu leen dëgg ku fi toog naan la ay euh, moo la gën nga ne lu tax nga ne yaa ma gën mu ne la man sëtu sëriñ Tuubaa laa ndax maa gën kooku waxu la dëgg dalay fen bu la nee doomu sëriñ Tuubaa la ne la moo la ndax doomu sëriñ Tuubaa fen waxula la dëgg bu la nee doomu Alaaji Maalik ne la allah ji malik mo la gën ndax allah wu da lay fenn waxu la deug ndax yeneen ti yàlla noo alayhi salatu mo gën ñi ma tuddal ñep te ay gënante doomam ma nga safara doomam ma nga safara kon nit ay sante mbake la sante wala si la sante wala ñas la sante wala doomu baay ñas la wala doomu sëñ Tuubaa laal ay door la ci côté yoy la bëgg ñew ni pour waxtaan ak yeen ci benn côté ndax seen xex yi dafa gatt trop ndaysan seen xex yi mo gatt dama leen barke yalla ku leen nak du leen top man li may wax yépp génnut ci lii ci comme ay dóor ay nit bëgg leen ndax bëgg leen tegal yoo xam ne même bu dee day wax waxu dëgg bu ci boolee fen dañ koy génn ne leen lii naxe la ndax day day naxa ay naxaate la ñun naxe la ñuy xeex bu fekkente ni nga ñëwaat ci yeneen yi ci ay gën ci ay doomu kii moo gën doomu kii MC Niass yow laay ñëw ndax seen combat yi dafa gàtt saan dama leen yërëm barke yàlla dama leen yërëm ndax yéen problème bi mooy nit na ñëw indi ñetti audio ñaari audio léegi bu ko indee ci audio seen xeex bi dafa gàtt ndax seen xeex bi benn temps la temps muy tey mais seen xeex bi nit bu indee benn combat teg yow bul xool li mu defar tey tey tey mais xoolal tamit lu ci nar a yàqu seen combat ak yàqu-yàqu la war a doon mais seen combat dafa gàtt seen combat tey la seen combat tey ku leen indi lu important doo leen ko wax dëgg ndax tey tey dafa gàtt te égoïste la nit da ngay war a xalaat say njaboot di xalaat say futur ëllëgu réew mi di xalaat loo xam ni. maanaam da ko fiy bàyyi mu des fi loo xamante ni si day defar dëkk mais seen xeex bi yëpp yëpp yëpp ndeysaan tey MC Niass tey bu génnee mu indil leen benn bagage bagage boobu MC Niass indil leen ku ko ku bëgg ñu déglu la gis nga kon da ngay jaay sa wax ku bëgg ñu déglu la rek wala duñ la mere rek bul tudd ayibam bul tudd njuumteem ci foofu bul tudd luy yàq pour après looloo tax après ngeen am déception yéen sénégalais yi ñu ci bëri ci yéen ngeen am des ndax ni ngeen di toppee doomu aadama ànduk naafeq ànduk tappale man moom wax dëgg fa yàlla képp kuy naafeq setan waxuma ak yow ndax naafeq mooy xam dëgg ba pare dëgg ca naafeq mooy ku buggut a baax koo xam ne parewul pour baax kon naafeq soxlooma la bëgguma la bëggaanuma la am ñoo xam ne nag ñoom dañuy yor seen nopp di déglu li am solo mooy ngeen dëggu mooy ngeen di déglu bu nit bu leen di wax mais comme pas jikko hypocrite nit di leen wax li mu leen wax doo leen ko déglu ndax seen xeex dafa gàtt moo tax chaque jour ngeen am déception moo tax tey ku mel ni eh, MC wala keneen ku mu mënta doon ni ak man mii di wax ak yéen tamit ni ngeen di toppee yéen Sénégal topp kon la dof seen xel yi nekku fi te seen xel yi li li ko yóbbu yëpp diine la du sàngara du boon du yàmbaa du dorog sëriñ si ñoo yóbbu seen xel ñoo raw dorog dañ leen dorogee ndax affaire bi bu duggee diine rek ngeen dof tariixa drogue la ci Sénégal drogue wallahi comme drogue ndax day dofloo nit dangay gis nit mën la wax lu pertinent ci àdduna ci dundam lu pertinent mais nga mën a gis nit ñëw toog léegi ne ko kee bar lañ ko soppi woon nit la woon ñu soppi ko bar te ku jàng ba yor diplôme ñu ne la kii nit la woon kee kee de nit kee de ngay gis ne bar la woon bar maa ko soppi nit nga gëm ko kon tariixa kon drogue la sunu sëriñ si li ñuy jàngal ay drogue la moo tax kon il faut que ñuy leeral loo xam ne pour askan wi pour yërëm leen ndax sunu sëriñ si li ñuy dund mooy yàlla may leen xam-xam tey am na si ñoo amuñu xam-xam mais ci waxin mais seen xam-xam wala seen maam yépp mooy poson bi ñuy mën a jaar pour mën a nax nit ki ñun naxe la ñuy xeex pour mën a nax nit ki gëm loola seen bopp ne la ñoom yàlla lañ gëm loola sa bopp ne la yow ñoo lay may lii gëm loola sa bopp ba mën a foqati sa xaalis bi nga yor ay million nga ñëw jox leen ko naan may adiya temps ba nga leen jox million yaa ngi am sa mbokk yu sonn ba nga leen jox ay millions yaa ngi bàyyi sa yaay ba ngay léegi ci loo xam ne yow da nga war a jariñ nit ki nga fay naar bi xoromam nga defal sa yaay respecté sa yaay sa baay say mbokk yi la jege mais nga bàyyi ñooñ ñëpp nga sant Jóob nga bàyyi sa famille jóobeen yëpp bàyyi say rakk bàyyi say bàjjan dem jox ko waa Mbàkke Mbàkke bu nu waxee ñu ne la ah affaire bi sunu maam moo fi am lu mu fi. sa comprendre ngeen. dafa am ku ma woo xaw a yàq sama wax ji ni tuuti léegi moo tax kon ci côté ci côté ci côté boobu laa bëgg laa bëgg a ñëw ak yéen mbokk sénégalais seen yii li may wax nii sëriñ si ñoo ko wallaahi ñoo leen gën a xam ne dëgg laa wax barke alxuraan kam ñoo leen ko gën a xam affaire u gënante ki yooyu daal du ay mbàkke du aussi du ay kii ku gënante yàlla wax na ko ci alxuraan bu indi ngeen bëgg a weddi alxuraan yàlla bi teg ko fa leen bëgg a indi ay waxi sëñ Tuuba wala waxi koo leen mëtandi te yu ci bëri sax ay dóor la sax ñu tegal ko sëñ Tuuba wala Maodo wala kenn waxi sëñ Tuuba waxi waxi Alaaji Maalik waxi Bañes waxi Muhammad salaa salaam moo ko gën a nekk pire ci diine l'islam fu sëriñ Tuuba waxee lu waroo ak waxu yëpp saa sam jël leen waxu sëñ bi sànni ko fële fu Alaaji Malik waxee lu wuute ak njàngaleen saasam dindi leen ko ngeen sànni ko fële fu keneen waxee lu wuute ak yeneen tibi bi sallallahu alayhi moom la yàlla yónni ne kii laa yónni wax ko ci alquran alquran lu mu wax sax di ngeen di jël alquran ba ngeen weddi ko ñu naan la bul firi alquran firi alquran day yàqu taalibe seen sëriñ si ay dóor lañ fi nekke ñoo tax jàngoo leen xeex daara yi ngeen di wax naan sëriñ si ñooy pee ñiy xeex daara du du yi du yi ñiy xeex daara dëgg dëgg dëgg mooy sunu sëriñ si ndax duñ jàngale daara duñ jàngale alquran li nu xam mooy yoral taalibe taalibe boo xam tegoo ko ci xam-xam tegoo ko ci fenn sama gars yi utiliser leen seen maani seen xeex bi dafa gàtt dama ni leen seen xeex bi dafa gàtt moo tax suba kenn mën na leen wor bu leen waree après ngeen toog naan kii danoo amoon ci moom yaakaar mu war ñu lii lii mais da ngeen di xeex loo xam ne mooy dëgg xeex lépp lu ci dëgg lu dul dëgg ngeen kii ko ndax yéen da ngeen di pour tey rek ngeen di xeex daal MCNass audiom bii ndeysaan mu def noonu am na solo ci côté waaye am na lu mu yàq moom ci boppam moom miy xeex moom jubut ndax ci biir waxam dafa wax wax joo xam jubut dafa adoo wax wax joo day naxe ñëw leen ñu ànd dégloondoo ko incha allah mais sama gars yi ndeysaan li leen bëgg a dégg mooy lu leen neex rek mooy pour tey moo tax doo leen dem de moo tax seen problème bi gis ngeen garab yéen Sénégal bu ngeen ko bëggee defar fondement la garab boo ko bëggee defar reen gi la wallahi comme ay tóotóor nii ci kaw nii rek ngeen jàpp nii hoo demoo leen fenn fondement moo am solo ba ci tabax tabax lu mu kawe kawe kawe kawe fondement ba bu dee fondement ba baaxut boo koy bëmax muy daanu garab it noonu bu reen nga dëgëru it mooy loolu kon mbir mi kon reen gi la mooy ngeen jëmbat fi dëgg mooy ngeen jëmbat fi bépp xeetu naxe nit ñi mën a xam nit ñi di wax waxi nit mais doo ñëw di ma waxi nit ba si yàgg nga ñëw dugal ci sa biir waxi nit waxi dof ndax ay doomu sëriñ moom ku ko fi tudd rek da ngay dóor ku fi tudd ay doomu sëriñ M Seniass da ngay dóor wallaahi nañu wante dëgg sama gars yi mais dëgg neexul ndeysaan ndax ñoom fi ñu toll li ngeen bëgg mooy <laughs> seen xeex bi loolu du loolu ah daf leen arrangé wul problème mooy daf leen arrangé wul comme ça génne na audio léegi pour diggante Adji saar Sonko na dooleel Sonko mais a ah ok naka dooleel mais léegi après reen nga mooy problème bi mais moom dafa am leneen lu mu leen teg loo xam ne loolu it luy yàq la loolu it ay naxaate la loolu ay dóor la looloo tax suba looloo tax suba day naqaree lijjanti seen xeex yi man naa fekk bul ma déglu man soxloo ma naa fekk soxloo ma hypocrite li ma leen wax xam ngeen ko barke yàlla soxloo moo moo tax. Eh, tuuti tabarkeel bari la ta <laughs> tuuti tabarkeel moo gën bari la tabarkeelul barke alxuraan seen wax yi barkeelul dara ndax problème bi mooy da ngeen ngeen di xool lu nit ñi ma bëgg a dégg loolu baaxul da xool lii dëgg da ngeen xool lii nekk da ngeen xool lii jëmal réew mi kanam mais seen xeexu réew yi subhanallah wallahi da ngay gis bëgg a laayfal MC Niass sax ay nit naan non bul ko laayfal ndax audio mi subhanallah loolu baaxul loolu baaxul loolu loolu mooy tóotóor mën ngeen def ngeen am kii mais après du dëggal après problème bi mooy MCS bu demee ba teg fi ay naxeem doo leen ci mën dara day doon beneen combat ci combat bi daf ci boole naxe lu gën a bon sax ay ay ay affaire Adji Sarr billaahi wallaahi ndax ay yéen ndeysaan yàlla moo leen tollul fenn moo tax mais yàlla akub yeneen tam salaa salaam moo la war a gënal lépp yoon la toog leen ay allahu akbar subhanallah yàlla ak dama ni la dama ni la fenal yàlla dafa garaaw te fenal yàlla goom day day day taatilaat société tamit. Abdoulaye Wahab ñu ngi lay siyaar bu baaxa baax di la ñaanal jàmm Amina ñu ngi lay siyaar bu baaxa baax di la ñaanal jàmm ñu andi deglo do vidéo bi inshallah allah alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh samay mbok rew moy senegal gi nga xam ni fi la juddoo yaro fi magge fi maa ngi nuyu ñop ku ci nek sa tour ak sa sante di tourner di jiital ci nuyoo bi sama yaakaar ci àddina muy cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass mi nga xam ne tey mooy xalifa Mawlana cheikhul islam ki nga xam ni moo taxawaaye taxawaaye suñu baay muy Mawlana Cheikh Ibrahim di ko ñaanal yàlla nag mu yàgg fi lool te wér ndax mooy suñu tiitar. waa léegi benn rek laay wax ci. comme façon nax seen bopp bu watawaasa bi làq na du man nee naa leen man l'islam yàlla ko yonent moo ma gën a lépp barke alxuraan si combat yi may combat yëpp combat laa ilaha illallah moo ma ci gënal combat taxawal tawhid mooy bi ma gën a fonk ci sama combat man jullit laa raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa muhammadi salaa salaam nabiyan kon li may li may njëkk a wax mooy moom tey euh, dina laal xaw a laal Macky Sall mais groupe bi du groupe du groupe politique Watawasaw bi laa ay sëriñ ay ay politique tax koo jóg groupe bi li ko tax a jóg mooy diine dajji weddi ay fen ak tappale ak naxaate yi nga xam ne lii dafa bokk ci lu yàq société bi li gën a tardé société bi li gën a bon ci société bi mooy sunu tarixa yi sunu sëriñ si comme seen naxaate yi indi mën nañ ci taal këru nit du mujj fenn mën nañ ci toj këru nit te yëfi banditisme la ñuy def yoo xam ni maanaam boo ñëwee dañ la koy dugalal ci diine lu bon rek lañ jël dugal ci diine ji ba pare boo ñëwee ñu ne lii diine la léegi buñ defee seen saay-saay saay-saay googu dañ koy jël dippee ko diine pour léegi tëj sa làmmiñ léegi benn nee na Serigne Mahi si yéen côté politiciens yi laay waxal yéen côté yéen analyse activiste yi yéen ñi nga xam ne bàyyi nañ bàyyi naa suñu bopp barke yàlla barke alxuraan seen xeex bi dafa dafa dafa tuuti seen xeex bi dafa gàtt ndax seen xeex bi lu ci ëpp ci daal mooy tay tay tay pour tay Sonko Adji Sarr moo xew mais après Sonko Adji Sarr ñun lu ñu war a xalaat paa ñun suñu doom yi ñëw pour après maanaam loolu dafa am solo trop trop trop ci xeex ci comme combat mais comme pas pour tey tey rek tey audio bi tey amal na ma njariñ wala lii amal na ma kii naa ko jay naa ko def ci Facebook bi naa ko kii moom mu am benn naxee boo xam ni MC Niass dafa jaay audio mi MC Niass audio mi yéen da ngeen ne bu mu ko jaay. muy bu mu ko jaay Macky Sall bu mu ko kii bu mu kii mënoon nañ ko kii ngeen koy gërëm ne audio yi waroon na ko war bu ko neexoon tey mën na ko jox ay Macky Sall mënoon na ko jox keneen pour audio yi du feeñ affaire yooyu mais MC Niass jaay audio yi ci ni mu ko jaayee loolu laa leen di leeral ndax jaay ndax jaay yaakaar ngeen mooy nga dem ñee jox ñi xaalis mais am na loo xam ne jaay audio la kaay leen ma wax leen ni mu jaay audio audio bi moo waral waxam ji audio bi ba mu ko defee yéen a ko taf ci Facebook gi yéen a ngi toog MC Niass MC Niass yéen a ngi koy déglu yéen a ngi kii comprendre nga léegi na fi mu toll nii mu ñëw nag di sabaxal lii léegi benn ci lim njëkk a cabaxal yéen activistes yi laay waxal yéen naa ay patriote ngeen yéen laay waxal yéen yéen ne man def naa ci live samay morom def nañ ci live te ak ndax actualité la am na ñoom bu ñuy dem bay wax ci sëriñ si actualité moo tax ngeen di wax ci sëriñ si te sëriñ si chaque jour actualité la actualité mooy lu yàq dëkk bi actualité mooy lépp luy tardé dëkk bi képp kuy naxaate comme ni ma leen ko waxee ci adiya muy portefeuille ba tey ku taxaw tey ci euh, band yi dañoo wuute dafa am bande yoo xam ci lislaama lislaama bi lañ koy jaarale léegi tey bande bi taxaw di tafu portefeuille ca Sandaga wala dugg ca oto wala dem marché caare wala leen kooku actualité la bis bu ne pour nañ bàyyi portefeuille jàmbur add kalpe nan bàyyi sàcc kon bu ma waxee addiye addiye day dugg foofu kon seen seen si chaque jour actualité léegi ñu ñëw léegi yéen yéen activistes yi yéen ñëpp toog ngeen defar live ba fi kii génnee sëñ Mahi Niass bii di wax mooy jamono yi nga xam ne xew-xew waxuma pour côté politique nag pour mu leer fii dama ne page bii Macky Sall tax ko jóg su may def politique beneen page laa koy defee mais léegi nan ñëw nan ñëw léegi ci comme ci comme yéen activistes yi comme tey li ngeen ñëw Mahi Niass ban koy ban koy daal yéen a ngi fàttali ko mooy ci jamono yi nga xamante ni si affaire ak coowal Adji Sarr bi waral kii toog nii tey ba ngeen koy partagé coowal aji saar boobu moo loolu sabab boobu ci la bokkoon Euh, muy xale yu dee ay problème yu am quatorze gone mort léegi Mahi Niass ba mu génnee génnul di wax ci xale yi dee ci comme li nga xam ni tey MC Niass def na ko ci audio mi am solo itam ba tey dañ ko koy nangul côté boobu léegi comme mu génnee audioom ñëw joxe ko léegi MC Niass léegi audio boobu mu génne noonu audio bi mu génne ba xale yi di dee ba actualité di am ba loolu di xew Mahi Niass ba mu génnee muy sëriñu xalifa Niassène bi moom da doon wax naan adiyee mboq dugub maa ngi ak vidéo bi fii def ngeen ci ay live teg ci bi ay activiste pas ngeen ne côté diinement ngeen ne côté actualité ndax bu ngeen wax ci sëriñ actualité moo tax mais actualité si jamono bi ci sëñ Mahi Niass moo nekkoon ba xale yi di dee dëkk bi am coow mu nekk kilifa diine am ku doon kàddu war naa génn kat wax ci coow li wax ni Macky Sall yamal wax lii kat indi ci lu rafet wax ci lu rafet waaye ba mu génnee boppam la doon lijjanti mu ne adiyee mboq. ak addiye dugub mu ne addiye addiye xaalis bi nag après bu kiiwee comme bu gaa yi mboq wan yor def naa ci laal laaj bi bari mu ne gaa yi mboq wan yor comme jamono yu mboq la woon ak gerte yaakaar naa xaw ak dugub léegi mu ne léegi pour comme te instant boobu taalibe yi ngi bay di ñàkk di sonn dem joobi moom mu toog mu ne léegi nañ ñëw ñu jox ko addiye mboq bàyyi ba tam ñoom balaa ñu jël mboq ba da ngay defar mboq ba pare gerte gi nga defar ko ba mu ba mu normal. léegi nga dem nga yóbbu tibb ci sa gerte jox ko adiyee mbokk boo jaayatee tamit ñi nga kalaat adiyee xaalis sëñ bi nii la waxee affaire xaalis mbokk xaalis bi léegi fi ñu koy kalee mooy boo demee ba sa gerte ba pare xaalis bi nga dem ñaq taw ba yàlla tawal la sëñ ba defoon la dara jàppewu la jox la ruuj jox la dara ci darajay maamam ci barkeeb maamam ci lay toog nga ñëw yëkkati xaalis ba nga jox ko ci jamono yooyu ba muy génn moom boppam la doon lijjanti adiyee mboq ak adiyee dugub waaye waxul ñëw ne ci actual Sénégal yéen ñëpp ngeen laayfal ko ba ci ay taalibeem di ko laayfal kon boo toogee kon nga njëkk ko gërëm ci sa wax foofu noonu kon lan la ñu defal yéen patriote war ngeen ko laaj ne ko ah yow MC Niass Mahi Niass mi nga ñu santal nii de wala kii woon ñu ko lan la ñu defal ban njariñ la amalul njariñ bul ko sant. ndax ci côté Adji Sarr moo tax a nag pour ngeen kii pour ngeen kii affaire Adji Sarr moo tax mu génn génn na am na bës léegi génn na seen dóor yi ñi ñëpp benn lañ barke alxuraan dañuy dóor wallaahi dañuy dóor. tey mooy xalifa Mawlana Cheikhul Islam ki nga xam ne moo taxawaaye taxaw. samay mbokk réew muy Sénégal gi nga xam ni fi laa juddoo yaroo fi màggee fi maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di tournée di jiital ci nuyoo bi sama yaakaar ci àdduna muy Cheikh Mouhamed al Mahi Ibrahima yaakaaram moom ci àdduna yaakaar wàlluk yaakaar comme benn yaakaar gi ni woote nii di ko wootee woo moo doon ñëpp benn lañ pas comme boo nee Mahi sa tey gàtt mais demal ci Mahi Niass demal ci mun Muntaxa Mbàkke demal ci Mbay Si Mansour demal ci su ñeenti kër yëpp wala juróomi kër wala fukki kër wallaahi yaakaar képp dem leen ci alxuraan dem leen fi nekk yaakaar kenn du yaakaar de te nit ku nanguñu yaakaar la nit ku dëgër fit nga dama ni la yàlla borom bi santaal dañuy yaakaar wàlluk yaakaar yàlla lañ koy def meeru doomu aadama yàlla borom sant la mooy taw mooy naaj mooy joxe xéwal mooy joxe wërsëg pas-pasu jullit la jullit bu gëmut lii sa pas-pas baaxut jullit bu gëmut lii joxo yaay yàlla dayoom jullit di nga war a gëm xéwal wërsëg jàmm wér taw naaj lépp ci yàlla borom bi azza wa jalla lay bàyyi ko bàyyi kewul ci sëñ Maahi Ñas bàyyi kewul ci ci ci ci naajug Maahi Ñas ma dem ci papaam Baay Ñas wala maamam Baay Ñas bàyyi kewul ci Baay Ñas bàyyi kewul ci Sëriñ Tuubaa bàyyi ko ci alaaj Maalik lii képp ku leen koy woo mi ngi leen di woo ci xeetu bokkaale mi ngi leen di woo ci xeetu naxay tekki ndax bu dee yaakaar nit ñi ngeen yaakaar nañ def jàmm dëkk bi nañ ñaan jàmm rek ci dëkk bi wala ñu ñëw rek jékki-jékki rek jël benn président rek luxus ko ne ko yow jóg ci réew mi mais ban njariñ lan am ci àdduna gii ñu leen yaakaar ban njariñ lan amal nit ñi même bu dul lool njariñ sax ci luñ mën ñoom loo xam ne tey mën nga gis lu bon ci dëkk bi nga jooy ko amuñu ko suñ sëriñ si comme gisoo kenn nga gis ñuy toroxal daara benn sëriñ jóg benn xalif jóg wala keroog Matar Sarr tamit moo tax seen genre wax yooyu tamit euh, da ngeen jara kii daal bam naan day xeex daara mais xeex daara yow sëñ Muntaxa Mbàkke dafa am ku ko ëpp kàddu ci ci ci ci ci Sénégal sëñ Bay Si Mansour daa am ku ko ëpp ëpp kaddu bu laalee alxuraan sëriñu alxuraan waa nitu alxuraan dañ ko war a yëg daf leen war a metti ñu jóg xeexal lislaam ne waaw lan moo tax ñu def nii daara wax ji xoole seen kàddu effet bi muy def ak ñaata mbooloo ñoo topp seen ginnaaw moo tax da ngeen di tàppale waxoo leen dëgg ba pare yéen ñiy xeexal diine gi yéen ñiy waxal diine gi yéenay wax ci diine yéenay xeex ci diine ñoom heure bu ñu waxee xaalis ak jommalaat naaw def lii xam nga yooyu la di wax mais duñ la waxal lu la amal njariñ ci àdduna du la waxal lu la amal même àdduna gi amuñu fi njariñ ci luñ mën li nit mën wallaahi suñu sëriñ si amuñ ci njariñ du ay dëkk bi tàng ñu jóg wax ci du ay dëkk bi xale yi sonn ñu jóg wax ci du dëkk bi nga xam ne tey nit ci conseil ay liggéey sax du duñ ko wax du du sax waxuma la sax ay garab sëriñ si njariñ amuñu ko wala sax ñu toog sax naan la sax boo jëloon ngeer nga soj nga naan ko rek sa ngay sëqat rek dalay dindi sa sëqat sax njariñ googu sax amuñu ko ban njariñ la nag ay wax yoo xam ni wax amul njariñ amul bopp amul genn lu kenn mënta xam sama gars yi utiliser la seen xel yi utiliser xel lii du ay affaire sëriñ yi ngeen sëriñ ustaas rek la mën a doon sëriñ bu doonul ustaas kooku naxekat la wallaahi ndax sëriñ li ngay kii mooy indi njubal Muhammad salaa salaam jeex na sëriñ mooy ustaas jeex na mooy di wax njubal Muhammad salaa salaam lii la yàlla bëgg lii la yàlla salaa salaam bëgg la ca des nag bu dee jubalaate jubal sax nit sax mënu ko allahu akbar jubal nit nit yenent bi salaa salaam yàlla daf ko ne yow nekkuloo yow yaay jubal da ngay teg nit ñi ci siraatal mustaqim wan leen yoonu siraatal mustaqim mais bu dee jubal yàlla mooy jubal ko ko soob ba ci jubal sëriñ sax mënu toog sax jubal taalibe danga naan taalibe bi lii la yàlla bëgg lii la yenent bi salaa salaam bëgg lii de ku ko def dem àjjana lii de ku ko def def sa dem safara yii de yenent saa doon na ko def moom muy def loolu moom bu ko defee moom yàlla la amal affaire te yàlla moo koy may xolum jub yàlla nañu borom sant la may xolum jub allahuma yaa muqallibal qulubi thabbit qulubana ala diinika allahuma yaa muqallibal qulubi thabbit qulubana ala taqwaak allahuma yaa muqallibal qulubi thabbit qulubana ala taatika allahuma aayna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika yàlla nañ baax maanaam ak njub ak hidaaya googu loolu sëriñ bi daf la war a jàngal mais lan lan jàngalaate kon loolu kon du ay ba ay dóor la muy bu bu murit baa tiijaan baa billaahi ay dóor li may wax nii fifteen mënuñu ko ci dindi ñemewun ma sax alhamdulilahi rabbil alamin du benn waxkat fii amul ko ñemee toog fii di ma vaar ndax li ñuy wax dañ ko xam ñoo la gën xamato xamaatoo xamaatoo wóor na yàlla laa xam naa ni Sénégal ñu bëree bëri wakati yi bëri ñemewuñ Medoune Diop waxkat bëri la ci plateau yi ñi may dal ñëpp ñom ay ñom Cheikh Bara Ndiaye ak seen tapalay yi def ak ay barke alxuraan lutax duñ ma tudd du lenn dañi ñom dañ ma ragal buñ sañon man ma suulu waxuma len tiaxal deug arrangé wu len ñom buñ sañon ma suulu du tiaxal buñ sañon ñom buñ sañon duma waxati seen ñëmé won ma benn bis mas naay tok ma jël benn vidéo boo xam ni benn sëriñ la ci Touba mu wax benn waxtu tojaange ma teg ko benn taalibe boobu sama copain la topp ma di ma baab ndax man comme waxi ma leen wax wax yi dafa metti de yàlla xam ne suñu waxtaan dafa suñu waxi dafa metti da ngay am say copain ndeysaan yu bëgg comme li ma lay wax nit yow nit da ngay ñëw ñu ñu tafu portefeuille nga naan way ñi ngi taf sa portefeuille man la naan way tay man nangam daan sa mam tay ma ki yow da nga ma dinga da nga ma contrat fekk dañuy tafu portefeuille dëggantaan nga sawaay dañuy sàcc sa portefeuille mu naan la sa waay sa maam maamam sa ndijaay ndijaayam yow da ngay dingat sama sëriñ dëgg fekk sëñ bi day sàcc sa xaalis nga ko naan kii day sàcc sa moonin woote yi yenent yi woote yi ban rey leen tam lii la yërmandeewu askan wi la Muhammad salaa salaam ba muy woo nit ñi ba ñuy bojjantee jaaseeg ñooñu wallaahi mi ngi leen doon woo pour ñu mucc ci safara dem àjjana ñi ngi leen doon woo pour ñu dund dund ko tey mi ngi leen doon woo ci kàddu laa ilaaha illallaah mi ngi leen doon woo ci kàddu ay bàyyi leen nger ndax laa ilaha illallah bu nekkee sa xol nekk sa kii jikko ya mooy doo doo nger doo sàcc doo triant doo naxe dëkk bi stable dëkk bi nekk si jàmm sallallahu sallam ci lii la doon woote ci jàmm ci jàmm googee bu leen foog ni moom mooy jël ay jaasi naan pour lii wala ci jàmm joojee nit ñi ne ko jàmm jii du fi am kenn du fi woote jàmm kenn du fi kii moom bëggal nit ñi jàmm moo tax ñu damm bëñam ca Uhud kon même la ñun suñu wax yi ñuy wax yàlla xam na ni barki yàlla ñu ngi fees dell ak yërmande ci yéen da koy wax copain bi ne ma nii ne ma sa waay xanaa xamoo ni sëriñ diw sàngam bii day toog di la seetaan ma ne ko maa ko gën a xam maa gën a xam ne fii ay kilifa te du ay nit wax ma ko benn yoon waxaat ma ko benn seen sëriñ si dañuy seetaan ñun rek la ragal ñi nekk Sénégal yëpp yëpp seen sëriñ si ndax seen ceeb sax mi ngi commencé ci ñun la bokk nañ ci yàlla na borom santala barkeel yàlla na borom santala dooleel ñu barke alquran nit ñaa ngi yeewoo bu ba a baax a baax a baax. ndax am na yoo xam ne ay jaaru sax jaru sax ay xaala laaw xaala rasul dafa am yoo xam ne xel moo ko fekkewul sa waay ms waxam ji wu leen ñow yu ñu continuer ci kii bi ma bañ a yaatal sinon live bi mën na jeexee ci lii quoi ci toog di expliquer di expliquer mais li ma tax a jóg tax a kii wala sax ma def ko sax beneen yoon ndax MC mi moom il faut que ma wax ci kiiwam vidéo bi mi nga xam ne tey mooy xalifa Mawlaana Cheikhul Islam ki nga xam ne moo taxawaaye taxawaaye suñu baay muy Mawlaana Cheikh Ibrahim di ko ñaanal yàlla nag mu yàgg fi lool te wér ndax mooy suñu tiitar kon Cheikh Mahi maa ngi lay nuyu bu baax Niass Coumba Abdallah gannaaw loolu maa ngi nuyu di sant di gërëm sama mag bi nga xam ni tey bàyyi wax na ne lépp lu muy ñaan yàlla karaamaam mooy nekk alquran al karim te alquran jooju tey moo nekk karaama مولانا شيخ الاسلام حاجي ابراهيم نياس كرام جوجو تاي كيكا يوري سونو ماك شيخ عبد الملك ميغا خامني تاي مبولم ليغا خامني موي القران سي ملينا باي گيسنا باخوايم مانكاي جيرو جوفال بو باخ ديكو نيانال يالا يالا گودال فنام اك كيغا خامني سما خريت فوكو گيس رك گيس ما تي ويتام موي سيرن علي سيسي محاج احمد ابراهيم نياس ñu gaan koo xam ci Cissé Niass mu Papa Dam wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na muy Cheikh Mourtada muy Babacar Lo mu Sëriñ Maamul muy ñëpp su ma toogee ba yàgg di lii danaa juum waaye maa ngi gërëm siñaan maa ngi koy gërëm siñaan mu bàyyi ak mboolem taalibe bàyyi ma fekk si woon tribunal di gërëm nag spécial ki nga xam ni mooy maire aadama Sarr bu Kër Massar maa ngi koy gërëm di ko sant waaye di ko gërëm ci gërëm goo xam ni ndax lim nekk taalibe Baay ñëw solidarité ci doomu sëriñam ci loolu laa koy gën a gërëmee sàkkantuma ba nekkee maire Baay te jour boobu da doon tukki waaye ñëw na solidarité gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn waaye gannaaw loolu nag gannaaw ba ma demee uy ji polémique bi dafa bëri te yaakaar naa polémique bu bari boobu nit ki nettali ci ñam moo gën dama leen di wax man m si ñes benn aw ma kenn ku may farfarloo wala aw ma kenn koo xam ne damay ut ci yow daraja yàlla may na ma daraja doy na sëkk daraja jooju mooy lan nekk naa doomu cheikh ibrahima ñes ba pare kon man internet déglu leen ko yàlla may na ko daraja ndax nekk na doomu cheikh ibrahima ñes daraja mi ngi ko teg ki doon doomu Cheikh Ibrahima Niass léegi dem leen ci yeneen yonent yàlla nox kon doomam kon am na daraja ndax bu bu ëpp darajay MC Niass bi te moom ab bandi la woon doomam jooju doomam jooju yàlla sunu borom ne safara Ibrahim bu dee ci deret baayam ci boppam doom gën na baay yàlla def doom ja yeneen baayam safara te Ibrahima mënu ci dara ñu continuer. laata kon. du bës du bëgg lu rëy wala nit ñi bëgg ma ndax fekk na nit ñi bëgg ma bu yàgg parce que bayra yàlla may na ma ko man ba ma juddoo nekk xale da ngeen di dem Medina Baye nga laajte ko munoo laajte Medina Baye nga laajte xalifa bi te doo laajte ki nga xam ni mooy cat bi muy Baye Mbaye MC kon bës taxumaa jóg ndax ku yor deux mille soixante deux personnes loolu doy na bës waxuma la ak yeneen ay yeneen ay yeneen dayra yàlla def noo citoyen la kon ñëpp bàyyi leen ci xel ci ñaata personne la yor xaw ma deux mille soixante lan personne yoo xam ne ay taalibe baay bii lan moom taalibeem lan moom MC Niass déglu leen da ngeen tekki baaraam ndax yeete moo ñu tax a jóg dañuy bañ laaj bi gën a gudd. nu ma mënti nekk doomu Cheikh Ibrahima Niass justice soxla na ma oo na ma damay jóg dem uy ci justice kon citoyen Sénégal te bépp citoyen loolu moo la war da war a mën a dem pour dem uy ma demee wuy gis nga pour dem wuy ji bépp taa bépp kii citoyen la dafa dem war a wuy ji fii ànd naa ci moom lii dëggal pour di leen wax ni seen wax yi maanaam Sénégal ku bëgg a nax nit da ngay jël benn dëgg damay ñëw di pour kii wen nen wallaahi ku ba leen fi tegal ku ne maanaam day leer naññi ci seen bopp xanaa kay lànk ak bañ moo fi nekk mi da nga xam ne li ñuy wax dafa am fu ñu ko teg fu wér pas comme kii tappalekat la kii lii rek ñëw rek wax yi sànni mais li mu wax noonu waxi patriote la waxi dëgg la loo xam tey sëriñ buñ fi convoqué da nga war a dem sëriñ buñ fi kii ci wàlluk yoon da war a kii gis nga xam nga loolu dëgg la waaye déglu leen. fekk naa fa xam ni ñu koy wax maa xam jàlloo ku teey te yàlla may na ma su ma gisee nit ku jullite yàlla daf na koy yëgal ci sama biir xol waaye mun naa seede maa ngi koy soog a gis te mënoo gis nit ki rek seedeel ko loo xam ni xamoo ko waaye li ma yàlla may man ci xëy ba gi ma am di ko gis gis naa ni nit ku jullite la gis naa ne nit ku dal la ndax laaj na ma lim ma war a laaj yépp ma tontu ko ko déglu nee na li ko yàlla may ci ay dóor du dëgg ci rëy mooy kump ci comme kumpa mooy xam rëy bu leen di wax Sénégal sama gars yi leen dóor de xam nga léeg-léeg di nga dégg ñaan la léeg-léeg nga gis kenn bëgg laa dóor boo waxee alxuraan sax dañ ci fenn ci biir alxuraan xam nga alxuraan yàlla suñu borom nee na dinañ ci dina am ñoom dinañ ci réeral ñu bari di ci di ci gindi ñu bari bokk na ci xëy ñu jël benn baatu alxuraan rek jël rek comme ñu ne la alif laam miim zaalikal kitaabi laa rayba fiihaa hudan lil muttaqiin alladiina yu'minuuna bil xëy bi mooy ñi nga xam dañoo gëm bil xëy bi rek lan lay jàppal yu'minuuna boobu ñu ne la xëy bi mooy lay wax mooy nga gëm kumpa bi la alxuraan nga bàyyee kumpa boobu indi kumpa boo xam ne nit moo la ko tegal muy kumpa ban muy da ngay gëm ni bu nu deewee am na dund barzaq mooy xëy boobu mooy nga gëm ni yàlla suñu borom nee na bu yowmal xiyaamee kii day daw kii kii di ndey di daw doom doom di daw ndey nga gëm ni yàlla suñu borom nee na bu yowmal xiyaamee dinañ jox téere ci loxo ndeyjoor jox ñu téere ci loxo càmmoñ loolooy xëybu gëm tamit ci leneen si li yent saa salaam wax ci lu ñëwagut ku mel ni masiixa dajjaal dina wàcc ay sab na mariam dana wàccaat mujjug jamono du ñëw saatu taxaw te lii ak lii am na mooy nga gëm xëybu boobu loo xam ne gisuloo ko kumpala ki yow mosoo ci teg sa bët nga gëm ko nga gëm ko nga gëm ni kat bàmmeel am na ay laajkat yu la fay laaj xëy bu boobu la yàlla suñu borom di wax ci alxuraan mais ñoom beneen xëy bu bu ñu la fi indil dañuy waxuñu la dëgg yaak ñoom yéen a yam ngëbal dem ci MC Niass mi nekk sa biir loxo bi wala mu xam lu biir li nekk ci biir xol yi wala wala wala mu xam kii te benn waxam yi salafaa ñoo ne comme bu gisee nit sax affaire nañ bàyyi noonu comme damay bañ a gën a guddal sooy def yaatal yaatal yi da ngay dem ba ku moytu da ngay génn kii bi sax nañ continuer waat tuuti rek waaye waxtaan ree kaaf amul benn problème kon doomu aadama nu ngi koy fekkee loolu laa bëgg ci nit koo xam ni day jiite ay nit parce que ñun ñëpp nit lañ te li ñuy liggéey ay liggéey la rek ku ci wàcc wàcc nga ci da ngay mel ni kon keneen ki muy police bi muy gendarme bi muy militaire bi soo solee sa tenue yaa ngi ci service waaye soo paasee service boobu nag xamal ne nit rek nga kon nit kuy dugg ci bureau di liggéey te loolu wane na ko te naw naa ko ci loolu tey nag man li ma taxoon a dem maa ngay leeral sénégalais yi ne man aji saar encore une fois sama doom la encore une fois ñoo bokk Mawlana Cheikh Ibrahim waaye encore une fois musuma gis aji saar bët ak bët musuma nuyoon teg aji saar moom nag gis na ma bokk na ci sama kuréel muy Shababul Fayda ma waxaat ko musuma aji saar waaye aji saar moo ma waa déglu ngeen léegi nee na kii taalibeem la mooy li ma leen wax ci baatu sëriñ ba tey dóor rek. yow sa sa sa sa taalibe boo xam ne xamu ko sa taalibe boo xam ne yëgoo ni sax kii sa taalibe la kooku ban ban façon sëriñ la ci lislaam sama waay sëriñ mooy ak lan nga ko mën a yokk lan nga ko defal tey kon kii kon bu demee kon ba dugg ci wàllu yenn sañ-sañi wala yenn yàqute yow mi mu jàpp ne yow yaay sëriñam yow mi mu jël boppam mu jox la boppam. ci yow mi nga xam ne ci yow la jébbalu yow la jàpp ne yow yaa ko jàngalu ragal yàlla am nga responsabilité bi jàngaloo ko diine ndax jàpp na ni diine l'islam mooy aji saar Sénégal yépp moom ko wax kuy aji saar ñu dafa bon jàpp na ni diine l'islam pour nit ki baax luy diine lislaam da ngay dem nga tënku ji ñàkk fayda dem lapar lapari ci benn doomu Baay Ñas wala sëtu Baay Ñas nga dem lapar lapari dem ci benn doomu sëñ Tuubaa wala sëtu sëñ Tuubaa nga lapar lapari dem ci benn koo xam ni papaam oustaz la woon bu doon jàngale oustaz ba dee na fii comme oustaz rek oustaz fii ndax oustaz buy jàngale oustaz bi bu deewee di nga topp doomam naan oustaz bi da doon jàngal ay nit benn la benn la benn la te astafurlaa di dama naan benn la ndax oustaz sax dalay jàngal xaala laaw xaala rasul dina jàngal diine mais même ki la jàngal diine nekkul na day dee rek waa sëtam waa famem ñoo fa gën ma ñeneen mën na jàng ba roppi oustaz boobu yow oustaz mën nga jàngal nit sax nit ka dem bu ëpp la xam-xam yow oustaz di ko jàngal wallahi ki la dalal baa jàngal la loxo arab jàngal la lépp nga jàng ba dégg arab nga gën ko dégg diine nga jàng dem ba roppi sa sa sëriñ sëriñu la sax ci wee ba nga mën a doonaat sax sëriñam kon yii ay dóor la affaire ñàkkal fay fayda nit ñi da ngeen a askan wi teg ci ndax boo leen jëlee seen kat gaale yi rek teg ñas si ñun ñooy doomu soxna yi ñu ñooy kii léegi ku dul ñun doon loolu ay ñàkk fayda la loolu ñàkk fulla la loolu yàpp yàpp askan wi loolu yàpp Sénégal yi la nit doomu aadama benn mag dafa ne waroo wax gëm sa bopp ndax gëm sa bopp baat boobu baaxul ndax yow mënuloo dara sa bopp yàlla moo mënal waaye xaw ma ban moo laa mën a utiliser mais comme nit ki da ngay gëm sa bopp daal exemple boobu ci mode waxin mooy nit ki doomu aadama da ngay xoola bul suufeel sa bopp nit ki bul ñàkkal sa bopp fayda bul ñàkkal sa bopp fayda ci sa kii lu nit am war nga ko mën a am lu nit am war nga ko mën a am nit ki lii da ko lu lu nit am yàlla moo ko may ku ay sax nekk milliardaire sax warul a jaaxal warul a doon lu lay bett war a bil kaaba dawal Ferrari warul a bett nit lépp lu doomu aadama am nit mën nga am ndax yàlla moo koy joxe yàlla mën na la ko jox nit da dafa am solo nit doomu aadama ngay bul xeeb sa bopp mais ñi dañuy xeebloo suñu bopp lañoo yàpp li ma war mooy ndaw laa bu bëggoon àddina nekk ci àddina te nekk doomu sëriñ gannaaw ba ma jógee Mauritanie jàngi ba ma ñëwee bëgg naa àddina waaye ba ma demee ba xam ne àddina bëgg ko nekk ci du sa yoon ndax sa baay daf laa jur ngir lim jàng ak lim tabax ci lislaam pour doomam yi ñëw àggale ko ma gis ni lii mooy sama wareef lii mooy sama liggéey bañ naa ko ba ci sama profession dama def chef religieux ma jug nag pour dox mission boo xam ni sama baay xam naa ni lim def yëpp mënuma ko waaye dinaa ci def lu ma ci mën ëllëg su ma janoog sama baay nga xam ne duma ma rus yàlla may gis nga dóor yaa ngi nii nag léegi nag audio mi ba mu leen ko présenté ba pare léegi nag chef religieux lay woote woo nee na mooy li nga xam ni moom la def ci kiiwam léegi moom dafa nekkoon kàccoor wala dafa nekkoon xawma lan ci loo xam ne naka su dul noonu léegi tuub na mais boo tuubee sa bopp nga tuubal yow est-ce que yàlla nangu na sa tuub boo tuubee nga changé yow sax jaamu yàlla yow amul loo mën a yóbbaale nit lu dul nga jéem a jaamu sa borom subhaanahu wa taala nga sellal ko ngir jëmmi yàlla ga la yàlla lam lay fay yow la koy fay du ko fay sa taalibe yàlla lam lay fay xamoo lu mu kon yenn yi jékki-jékki rek formé sa kanaa sëriñ ñii nii ban daara nga nekk yan xam-xam nga yor lan nga mën a yor pour jàngale seen yi ay dóor la mbokk sénégalais wallaahi seen yi ay dóor la mbokk sénégalais yi seen yi ay naxaate la ngeen yeewu ngeen utiliser seen xel yi xool leen taalibe bu mel ni Adji Sarr nan ngay amee sëriñ sa sëriñ sa sëriñ xamu la am sa sëriñ sa sëriñ yëgul ne sax yow am nga sëriñ boobu lan la la mënal ku la yëgut moom wax na ko carrément léegi taalibe yi ñëpp nag koo ci dem nii la wallaahi ni di am sa sëriñ sa sëriñ yëgu la xamul boo deewee comme dégg naa benn borom xam-xam ko mu ne nit ki day kii ñu ne sëñ ba sa taalibe ba da dee na sëriñ boobu mooy taxaw tey sa sëriñ bi naan sa taalibe ba da dee na sëriñ boobu moom moo naan moo lay fekk ci bàmmeel kooku wax na dëgg yow ba ngay dee yëgu ko ñoom dañ ko dañ la ko wax ne la sëriñ bi da nee na dee nee na de sa taalibe dañ ko koo tàggee sëñ bi soo koy léegi sëriñ bobu koku mo mën tok tay fekk la ngay dund ni mën la man dama lay fekk ci barsax dama lay fekk ci bàmmeel te yow yegul ba ngay dé sax yegul ba ngay dund yegul sama gaay yu utiliser la sen main affaire de sëriñ affaire de ki bokku na ci lu taré sen Sénégal gi léegi nak ma ñew ci dóor pour di len wan ni deug ñi ay 44 lan du question ay affaire audio ak affaire yoy quoi affaire de ay yéen da ngeen di xool dëkk bi. nag su sama baay nga xam ne yàlla may ma may jël ay xale di leen yor ëllëg bu ma dajeeg sama baay sax yow sa baay da xam fu mu ne sa baay da yow yow loo xamal sa baay ëllëg est-ce que wóor na di nga dajeeg sa baay ñun dañuy dund di ñaan yàlla di yaakaar àjjana yàlla nañ fa yàlla yóbbu ñun danoo xam ñun fan la ñuy mujj danoo xam fu ñu jëm dañuy am yaakaar ci borom bi subhaanahu wa taala mais sa baay yow ma xiyaab lan la fay lijjanti wala nga dajeeg sa baay foofu dóoru foofu yàlla nga yow su ma dajeeg yàlla ëllëg su ma dajeeg yàlla borom bi subhanahu wa taala mu àtte ma ci yërmandeem ëllëg bu ma dajeeg borom sa sa waay ay dóor la wa rabbil kaaba dóor yi laa leen di gën a leeral incha allah. xam nañ ma ci dëkku te mbiri na bàyyi gi ma dëkk muy samay mag ñëpp xam nañ ma ci dëkku yàlla may ma bañ koy gédd di ko dindi ci Cheikh Ibrahima Niass ma taxaw défendre na leen nit a ngi nekk jullit ba pare am jikko yoo xam ne rafetul ci lislaam sakkantumaa nag koo xam ne neenga nga tariqa la yàlla moo gën a foor lépp yonent bee gën a foor ñu fi nekk ñépp kon nag nekk taalibe Cheikh Ibrahim après mun naa mel neneen ci loolu ma défendre ko ci laa toogee gis naa waajuram toog naa ak moom waa gis ngeen affaire bi daal seen kii bi pour mu bañ a gudd bañ a kii ma topp vidéo bi ndax dafa am yeneen leeral yi ma war a defaat léegi problème bi yëpp mooy fi ñu toll nii moom audio mi daal jaay na ko ni mu ko jaayee mooy léegi fi ñu toll nii chef de religieux la léegi léegi soppi na léegi lan la soxla léegi ay taalibe léegi lan la soxla léegi fi ay daraja la ut lii mooy li nga xam ni jaayee na ko jaay na ko kii bi léegi ma ñëw ci seen wax yi nga xam ni ndane seen gars yi ay dóorkat la ñu ci baree bare dañuy wax nii rek mais wallaahi dëgguwuñ ndax dañuy wax loo xam ne mën nga ne nit ki waxal dëgg mën nga ne man nii laa meloon ma soppi mën nga ne lii laa gëmoon démb gëmatuma ko waaye déglu leen ko fii te maa ngi waxaat ci kanamu caméra yi ne bépp ministre ak bépp maire boo xam ne mus naa dugg sa maire yi ñaan la ndimbal lu jëm ci man wala wax la sama soxla taxawal nga fen loomu déglu ngeen waxam la de MC moo nekk nii moom moo ko wax nee na bépp ministre wala bépp kii boo xam ne mës na taxaw ne la maanaam sàkku na ci yow ndimbal wala dara nga taxaw nga fen ko déglu leen ko. loolu leer na kon gëw ma yooyu. monsieur le maire. moom la de déglu leen ko. Aliou Sall ñu ngi lay nuyu. monsieur le maire. jot na man mii nag ma wax la sama soxla. dama bëgg nga may ma kër gu ma dëkk ci dakaar gi ci géejawaay gi. loolu maa ngi la fay wax. ndax sonn naa ci luyaas di fay huit cent mille. un million waratuma ci doomu Cheikh Ibrahim boo xam ne dama représenté fii ci Ndakaaru yow nag laa ci am yaakaar bàyyee naa la ak Cheikh Ibrahim soo ko defee gërëm na soo ko deful gërëm na waaye wax naa la sama doléance yàlla yàlla guddal sa yàlla may la wér te nii nga teewee nii ak li ngay ut fii ñu ngi koy wax ñun ku ñu defal ñu fay la taaliba bàyyi toog li ngay def ci ñoom ñu gis ko ñu ngi wax taalibe bàyyi tamit ne yéen ñu fi nekk ku ñu defal ñu fay la ku ñu defalul gisuñ la kon maa ngi wax ne taaliba bàyyi nañ ko jàppale suñ mbokk taalibe leen ndax jàppale sa mbokk bu bon moo gën fuuf nga jàppale keneen dañ koy wax mbokk bu bon nga jàppale ko moo gën sàkkantuma na nga am mbokk mu baax kon ñu ngi wax taalibe yi na ngeen bàyyi xel ci moom Alioune Sall parce que su fi toogaatee suñ njëriñ la teg nit ku nekk sa njëriñ ngay waaw xam ngeen kii moom la nee na mësul laaj kenn dërëm moo taxaw fii di laaj Alioune Sall ne ko pour mu may ko lu mu jëndee kër kii beneen bi lan la ci teg mooy doo man doomu Baye Niass wur ma toog fii di kii daal comme doomu Cheikh Maulana xuma lan waroo toog fii di kii léegi daal xaalis daal koy amee daal mooy dangay ngay ñëw ndax kii sama maam la ndax mës ngeen dégg ci xissa yent salaa salaam benn njabootam jóg naan man maay doomu yent salaa salaam da ngeen ma war a jox xaalis da ngeen ma war a jox addiya da ma war a kii waruma sonn yonent bi salaa salaam contraire da ngay dégg ñu lay wax naan la Fatima da doon wax yonent bi salaa salaam pour mu utal ko jaam ndax sonn ndax dadaan dadaan dadaan ñëw di raxas ak di dëbbëg ba ta loxo yi di fu toog yooyu mu a ko dafa bëggoon daal comme genre mbin daan daal loo xam daal dina ko dimbali ci di ko jàppale ci kër gi surtout yertu salaa salaam pour pour loolu ndax lépp moo koy sonn lool sonn lool lan la ko yertu salaa salaam ci ay yàlla la ko delloo naan ko booy tëdd na nga wax subhanallah ah subhanallah fanweeri yoon ak ñett nga wax walhamdulillah fanweeri yoon ak ñett nga ne wallahu akbar fanweeri yoon ak ñeent lii la ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam jox ne ko loolu dana la dimbali pour nga nekk ci forme yéen tamit yéen liggéeykat yi yéen ñi bañ a biddanti yéen ñëpp boo leen di tëdd ngeen di wax loolu loolu borom bi subhaanahu wa taala dana leen defal yombal ci ku am yéene gu baax nga laay waxuma ab kàccoor de koo xam yaa ngi naan ay waay man di bëgg naa lu ma liggéey ba tas nii maa ngi bëgg fajar bëgguma bëgguma ko taarle lu ma mënta kii mënta kii donte huit heures laay xew wala kii fajar moom bëgg naa jóg moom yàlla dimbali ma may ma forme ba ma jóg ma julli fajar wala sax bu dee ku baax a baax a baax ba baax a baax yàlla nañ ko yàlla may ba am dara jooy nga ne non avant fajar sax pour may mën a def xiyaamul lay di mën a julli mën a jël ci xaaj ci guddi gi ma julli mbok sénégalais ngeen yeewu ngeen utiliser sen xel live bi maa koy def ni waye maa koy def bolé ko xawa a ànd ak yàkkam ci ndax dafa am ci mu wara nek xam nga mais inshallah li dina ci gëna a baram gën ci def live gëna dag ki bi comme parti nga am soxla naa ko pour ci MC Niass ñu wax ko wax ji nak lima ci si moy MC Niass audio mi mu def ci côté comprendre nga génne comme waré audio yi wane yaq yaq te bu nek ci dëkk bi am na solo. mais moom it li muy def moom ci boppam euh, li tax muy xeex audio ci ak mbon moom ci boppam mi ngi koy def mi ngi woote woo ak sëriñ mi ngi woote woo ak daraja ci lan ci doomu Ibrahima ñas rek la du ci xam-xam du ci jàng du ci woo nit ñi kii maanaam bëgg a ñëw euh, maanaam mooy loolu mbokk sénégalais utiliser leen seen xel seen xeex bi li tax mu metti lii day metti seen combat yàlla xam na loolu ñii pour ñu xëy gis nga xëy na xëy na woor Alioune Sall classe yi ay affaire ndax neena ali sallu ñom la jàppale te newaat taalibe bàyyi ku bon nit ki dal <laughs> allahu akbar yéen so rek diiné ne comme nit ki dal sa xarit sa mbokk même bu boné jappalé ko même bu boné jappalé ko mo gën nga jappalé ci lool fu ko tek lool ban wax la sa mbokk bu bon nga jappalé ko mo gën nga jappalé sa mbokk bu baax ñu baax ñi dañuy and ak ñu baax ñi muy sa mbokk dama dé la julit julité mbokkam nit da ngay bëgg nit ci ay qualité da ngay jappalé nit ci lu baax da ngay jappalé nit ci deggu mais bu dee comme nit yow bu dee sa mbokk la bu kii la rek maanaam nga jàppale ko moo gën nga jàppale keneen subhaanallaa déedéet àdduna demeewul noonu ñun ñëpp ay mbokk lañ te affaire yi warul nekk affaire de séparé inna lil muminina ixwa da nga war a bëgg sa doomu réew yépp waxuma la sax nga yam sax ci bëgg sa mbokkum jullit rek waaye ñi nga bokkal Sénégal ñu doon leneen da nga leen war a yéene jàmm di dund ak ñoom jàmm di dund ak ñoom lu rafet mbokk sénégalais utiliser leen seen xel mbok sénégalais di leen nangoo deg deg pa comme lu leen arranger comme tay kenn andi na benn kii rek seen xex bi rek bu ko andi rek ndeysaan moy woro wax ci mom ci yàqu-yàqu yu mu indi barke alquran amul lu gëna Yes, lu gëna a ci ab sëriñ ak oustaz ñoo yam pour ma wax leen ko mo leer ab sëriñ bu nekkul oustaz sëriñ ba baaxut ab sëriñ day nekk oustaz di jangalé mo xam ngeen waxtaan jubo nga fay ko mo xam tamit mom mu nek serigne dal def di gratis di jangale non mais serigne meunta gennu oustaz mais comme sen yi ay sëtu Bàmba ak mbake la ak sila ak Ñas la wa keur kër ñun doomu soxna ñoy fi genn du ben deug c'est faux c'est faux la len wax wallahi ay dóor la ken yoralu len dara tous ñu len yok dépasse ñom sen bop ñom buñu mënon yok sen bop yene len yok ñi ci ñi ci dal ñi ci <laughs> dal wallahi bu ngeen len bayiwon ñu torox ñi ci dal laa la ñi ci dal moy yi nga xamni ki nan ba ngay ñak sa adiya yow di len jox sa adiya gog mo len di dimbali mais buñ demoon di dugg di jaay di dugg ci marché yi yalla xamna ni buñ jaayul jaayuwuñ seen bop buñ lambalé wuñ seen bop yalla moy jaay ñi mënul len dar da len ndax di ciop seen moni yi affaire da agressé la yàlla nañ si mustaqim soxna fatou sama yaay boy ma ngi lay xiar bu di ñaanal jamm yalla yalla defal jamm dama ni len yalla nañu borom subhanahu wa taala defal ñu bax yalla nañu yalla defal ñu dëggu yalla na yalla dekk bi am ay nit yu dëggu bo bu ñuy wax lepp lu ñuy wax rek ñu xol la ci degg ñu wax ko lepp lu yaq reemi lu muy luy lu loo xam ne tey la ak suba ñu xex ko mo xam nit ñi contane mo xam nit ñi contane ndax xam ngeen waxi melni manam moy lool patriote du ko bëgg deglu danaan kii day yàq day saboote waaye patriote jàppal ni loolu posan la ci yow wallaahi ndax dafa am loo leen bëgg a dégg daal dafa am loo xam ni comme bu dara yàqoo rek comme kii nee na patriote la wala kii nee na lii wala kii génn na audio bul wax ci moom wallaahi loolu moo leen mooy li leen toroxal seen xeex bi dafa gàtt quoi xeexu deux deux minutes la quoi xeex boo xam ni pour tey mais après jàpp leen ni audio Adji Sarr day passé jamonoy Adji Sarr day passé ñun ñii dañuy passé ngeen jàpp. Macky Sall day passé man damay dee Macky Sall day dee Sonko day dee yéen da ngeen dee MC Niass mais jullit da ngeen di jéem a fexe ndeysaan ngeen nit même tubaab yi sax dañ raw ci yooyu da ngay gis koo xam ni moom day jóg ne damay dama bëgg defar avion waxu la day defar avion dama bëgg a defar avion tàmbale xel bu njëkk bi moo ko indi mais mi ngi jàpp ni sët sëtaatam moo koy eggale keneen ñëw dolli keneen ñëw dolli keneen ñëw dolli ba avion ba mat mais ñun lépp lu ñuy defar rek njariñ doo fekkee lu ñuy dund ñun sénégalais mooy lépp lu ñu rek nañ ko def pour tey pour léegi te yéen sax bii sax du njariñ loo fekkee ndax yéen ay temps la barki yàlla trappoo ko yàggatul dara yàggatul dara dara dara dara aji saa Sonko problème bi ñu fàtte incha allah ñu nekk ci yeneen nekkaat yeneen vibes yi yooyu ngeen di sóoraale kon da ngeen di xool yàqu-yàqu yi fiy def sëriñ daf fi yàgg baatu sëriñ ay dóor la kii li muy def ni ay dóor la dóor yoo xam dañ ko fekk samay maam fekk ko fi man sama papa waa Canaba ñoo ko képp otaas yi dafa yàgg <laughs> dana bokk lu guddeel seen réew mi yooyu ngeen di sóoraale sama gars yi seen faayit bi yëpp benn instant la daal benn instant moo tax te nit kooku sax ñii dara safu leen mooy xëy suba war leen bu leen waree nag ngeen toog nag commencé na di ko kii doo leen sax bëgg a dégg te démb moo ne mbirum Jóob buy wax ak yéen naan leen bàyyi leen xel ci lii doo leen ma déglu daf ma dal yu bëree bëri wallaahi maanaam bu leen di wax instant bi doo leen ko dégg ñun dañuy wax pour après ñun waxuñu pour tey waxuñu bi pour léegi dañuy wax pour léegi di waxaale pour li nga xam ne tey ndax xeex bi nekkul tey rek ëlëk du añ du reer waaye lu mata a suuraale la waxuma ak ay naafeq ndax dëkk bi dafa bëri ay dafa bëri ay kat dafa bëri ñoom gëmuñu dara dafa bëri ay hypocrite waxuma ak ñooñu hypocrite li may doxalee ak moom mooy la waykat ba wax man ab naafeq lu may doxee moom hypocrite nit ku dëgguwut maanaam mën naa maslaa ak yow de ndax nit ki da ngay am ak ñëpp jàmm di maslaa ak ñëpp am ak ñëpp jàmm waaye nit ki ab hypocrite yow ndaw bi dëggu yow mi bëgg lu jub sama doom kaay ma wax la sama yaay kaay ma wax la sama xarit kaay ma wax la dama ni la ab hypocrite ab naaféq nanga koo dawem xel gis nga bul ko dawem xel ngir koo dawem xel mu saani law yat ku bari am xel day dawee am xel nit du dawem xel lii laa la wax kat nit ku jubut naaféq hypocrite waxuma ku ku ku réer ku xamut koo xam ne da koy kii pour mu gindi ko pour mu xam man ñooñu laay waxal mais waxuma comme ñi nga xam ne ay hypocrite lañu ab hypocrite da koy dawam xel muy da nga koy dawam maayin nit ki boo ko dawee xel dalay sànni yàpp day jël yett ak ko moo tax kon maayin nga koy dawee mu ne na ko dawam xel bul ko dawam xel ngir koo dawam xel mu sànni law yett mu ne ku bari am xel koo xam ni yow sa maayin mi ngi fi day dawee am xel nit du dawam xel lii laa la wax kat subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك